télévision Futur Média mbokk yi jërë ngeen jëf dellu nañu aman mbégte mu yaatu ànd ak yéen ci xibaaru timis yi dañu koy tàmbalee ak la doywaar la xew ca diwaanu Ziguinchor di benn waay boo xam ne dañu ko jaawale woon ak sàcc ay ni topp ko dóor ko ba ca la doxee ñàkk bakkanam mu di mbir mu doy waar moo xamante ne ji jamono ji moom la ñuy waxtaanee ci diwaanu Sigicoor tiis a ko naqar la ubbi nañu ci ab enquête ngir xam ana lan moo ko sabab euh, ñi nga xamante ne ji ñoo ko defit euh, dañoo daw ñu ngi leen di wër ñu dem ca diwaanu Ziguinchor ànd fa ak Lamine Ba ci ay leeral yu gën a yaatu. Saña dëkk fa nga xam ne nag moo di quartier Castor daanaka am na ñu leen metti ndaxte seen doom la ñu faat ci ay anam doy waar yaayam nag di nettali na mbir muy wane naqar bi nga xam ne moom lay dund dem ba tey. sama doom la ñuy rey rey bu ñaaw lañ ko reyee sama doom dafa jógee Toubacouta mu ñëw Ziguinchor mu indi ay bant la andi mu ñëw fii dafa ñëw juste néema deux fii la yegg néema deux mu tase ak benn euh, kii eaux et forêt jigéen koo xam ne solul toni mu arrêté ko xale bi ko lan mu ne ko lan nga indi mu ne ko yow solo toni loo may arrêté kooku continuer di dem mu ne xale gi xale góor yi ñu nekk ki ñuy dawal jakataay mu ne dàkk leen kii xale góor yi ñu dakk kooku ñu dakk ko ba keeña jàppuñu ko kooku bàyyi taf-taf bi mu bàyyi mu wàcc ki taf-taf bi bu mu wàccee taf-taf bi muy daw tànk ñu ko koy yuuxu sakkee sakkee ba karge bi jóg ñu ñëw jàppal leen ñu de jàpp ko ñu dóor ko ay ay kii ay birigi la ñuy jël ay xeer ay kii banta yu mag la ñuy jël. ñu dóor bopp bi ñu ñu rey xale bi. ndaw bi nga xam ne rey nañ ko mu ngay wuyoo Zakaria ña waaye woy juróom bu jigéen bi ne moom moo nekkoon soutien de famille bi ndax moo doon faj soxla yi ne nag tey lor nañ ko bu baax a baax ginnaaw ba ñu reyee doom ji. billaay maa ngi dund lu métti xale boobu la ñu yaakaar kër ga gis nga li ma li ma gisee nii sama jëkkër dafa gaañu ci maamal doom. rakam gaañu rakaam ñoom ñett ñoo da ñoo gaañu ci benn kër benn année bilan ay weer la ñu bàyyante gis nga xale boobu lañu yaakaar ci kër ga fii la nekk si man ba mu takk jabaram fii xale bi ne damay dellu ma dem toog fële parce que kër ga kenn nekku foofu xale boobu boo ko reyee tey famille bi lu muy def boo gisee ñun ñuy ñuy bi lii la. soxna si moo di Khadijatu Diallo moom mooy jabaru ki nga xam nag ba dem si yàlla Zakaria Sagna moom nag nee ne moom nag nee ne xamutoon ne ba muy tàggoo jëkkër ji di ko laaj dépense moo nekkoon mujjantal yoon bu mu koy gis. mu koy def bari mën na xale bi ñaari kese. benn benn doom bu góor un an un mois muy jooy si biti. mu métti torop jëkkëram mu xëy si samedi bi mu ne maay dem Ziguinchor ay sept heures ma ne ko xaalis dépense bi mu ne ma maay ñëw léegi léegi maay ñëw léegi léegi boobu noonu. moom mu dem. jéem na jokkoo ñi nga xam ne ñoo di waa service des eaux et forêts lu luñ tudd tuuru benn seen agent ci li nga xam ne nag jot naa xew waaye loolu mujjul antu ñoom ñi nga xamal ne nag jamono ji police ubbi na ci enquête ngir teg loxo ñi nga xam ne ñoom ñoo jëf li ni mel. ginnaaw tiis woowee tiis weneen mu di gaal gu euh, euh, suux ci fële ca waaxi Cap Skirring yi. ñi ngi ciy wax ñetti doomi aadama yu ca ñàkk seen bakkan am na juróom nag ñu yàlla def moom mucc nañu ca am ñu bari ñoo it dañoo réer euh, sapeur pompier di wéyal seet gi ngir seet nda ngir euh, gis ñeneen ñu ne woon ca gaal ga euh, fi mu nekk nii nag amaguñ ci yeneen i xibaar des na ci dellusiwaat nu mu gën a yaatoo ak suñu ndaw li nga xam ne moo ñu fa waxtaanee leneen mu di ñu ñu seetlu jamono ji ñu leen di génnee ci kaso bi di libération askan wi lu ñu ko gisee ñu bari ci ñoom rafetlu nañu ko ndax gis nañu ne bu dee mooy tax ak dal mën a am ci réew mi lu jara jëmale kanam la ñu teewlu seen kàddu ñuy dénk Pafara Gningue ak Amadou Ba. nga xamante ne dañ leen téye woon am na lu ñu bàyyi si ginnaaw parce ñoom ñu nga xamante dañ leen téye woon am na lu ñu bàyyi si ginnaaw seen njaboot tout ça suñu leen kon kon dara dara dara du toog si seen kër yi. bàyyi daal day indi jàmm. voilà bàyyi day indi jàmm moo gën daal loolu du benn problème Euh, mais waxewuma ko aussi maanaam Macky Sall lu mu def du yoon déedéet maanaam dañ leen bàyyi rek problème jeeg jàmm dellu si. lépp loo xam ne si ne yoon moo ñu ko aayweet ñu koy moytu xam ne ñun Sénégal ñun ñoo ko bokk waaye ah, dañuy bañ a topp politiciens yi rek lépp lu ñu la def loo rek nga def ko xam ne ñoom kenn moom ci Sénégal ñun ñëpp ay doomi sénégalais la ñu. waaw ah, xam ne yàq baaxul quoi xam ne suñu alalu réew la. du alalu président du alalu Ousmane Sonko du alalu Khalifa Sall du alalu kenn son alal la faa ñuy nekk njaacaar. waaw mais loolu dañ ciy sant yàlla rek parce que xam nga fitna moom jarul yee ndaw yi bëri nañ ci dëkk bi bëri boo xam ne amuñu liggéey amuñu dara suñ amee lu leen naqari ba ñuy ñaxtu ah ba ñu jàpp leen ci tëj leen ci su fekkee ne waxtaan am na am na problème ci wàllu euh, élection yi waxtaan am na mais ñu libéré leen kenn ku nekk dellu sa kër parce àdduna moom moo tëddee noonu ay waay jàmmi waay am na ñoo xam ne lii dañ ciy profité suñ sañoon sa xale yi duñ génn mais jàmm moom moo gën lépp. mooy jàpp bi moo warul woon am dañ leen jàppoon de manière illégale ñu bàyyiwaat leen aussi de manière illégale je pense que ni détenu poli détenu soo ko jàppee moom boo koy bàyyi y a tout un procédure qu'on doit respecter alors que ñun gisuñu procédure gisuñu dara dañuy xëy rek un bon jour ñu bàyyi des vingtaines des cinquantaines de prisonniers qui ont été retenus ce qui est anormal loolu yëpp désordre la boo xam ne état bi mu ngi koy doxee. kuréel gi di aar sunu élection yóbbu nañu ab lettre ca présidence de la république li ñu bind ca lettre ba mooy sàkku ci njiit réew mu jël matuwaay yëpp ngir ñu organiser élections yi ñetti fan ci weeru mars ndax nee nañu mën na nekk. ñi ngi ko xam ne tey jii ci dañoo bu ñu seekoon ak taskatu xabaar yi fa la ñu amee waxeet njàq go njàqare goo xam ne am nañ ko euh, ci ndax élection yi dina am laata mandat njiitu réew mi di jeex docteur Abdoulaye Bousso kenn la ci kilifa yu aar sunu élection ñu déglu ko ak Mamadou Fall. kuréel gii di aar suñu élection jog bind ko xamal ko ne ko jàpp dat bi nag jot na sëkk balaa ñuy génn ci délai yi nga xam ne. moom la conseil moom la constitution bi wax moom la conseil constitutionnel wax ni élection yi mënu ko weesu moo tax ñun ñëpp ñu bokk dajee wax ni jot na sëkk waaye yemuñu ca dañoo lëlu daal di saytu xool yan date lañ jàpp ne buñ ko defee ci buñ ci defee élection yi danañ mën a respecter li constitution bi wax danañ mën a respecter li nga xam ne moom la conseil constitutionnel wax ci noonu nag la ñu gisee ni le 2 mars 2024 élection yi faw mu am ci le 3 le 3 mars le 3 mars 2024 faw élection yi am si sinon mën nañoo bañ a respecter li nga xam ne moom mooy le calendrier électoral mën nañoo bañ a li nga xam ne mooy passation service de témoin bi mu war a def le 2 avril élection présidentielle yi mënut a am euh, avant 2 avril loole mooy gis-gis wala gëm-gëmu Souleymane Ndiaye mooy secretaire général bu s mu xam leen ne lu aju ci matériel yi ñu ci soxlaak wattaay wi ñu war ngir ay élections yu jaar ci yoon li mu da laaj dëgg-dëgg mëne su koo def fii ak ñaari fan ci weeru avril loole mi ngi ko xamle moom Souleymane Ndiaye directeur général bu SAPCO cim ndaje moom xëyewoon na ko ak taskatu xabaar yi bokk ci ñoom taskatu xabaar yooyee Alioune Dissa Pereira ñu teew teewlu ko.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 te wax dëgg yàlla mu nekk élection bu nga xam ne day doon élection inclusive ñëpp mun si bokk c'est important mais également bu doon élection yu nga xam ne day doon élection yu libre transparente nga xam ne du am benn contestation loolu nag wax dëgg yàlla dialogue bi dinañ ko lancé acteurs yi suñ si waxtaanee ñu définir tat bu nga xam ne élection yi si lay am su élection yi suñ ne supposons mois de juin lay am wala élection yi mi ngi war a am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 liggéeykat yi yëngu ci wàllu nettoiement mu di concessionnaire nettoiement fii ci senegal ñu ngi ci géréw géréw ñaari fan fukki milliards ak ñeent yu leen état bi ameel la ñu bëgg ñu daal leen koy fay nee nañu euh, loolu lañ bëgg seen géréw bi nag bari nay loraange yoo xam ne jur na ko ci firnde li mooy daanaka mbedd yoo jaar ci ndakaaru mbalit maa nga ne fa jasar di juuge askan wi di ko ñaawlu bu baax a baax reportage Cheikh Diop. daanaka mbalit wi moom mooy jaaba fépp li waral lu ni mel a bokk na ci concessionnaire yi nga xam ne nag dañoo banque seen ay yoxo ñu nekk fii ci marché wu Grand Yoff moom baaxul parce en fait day affecté ci santé population bi ak jaaykat yi ci marché bi même ñun ñuy ndugg si sax baaxul si ñun parce que gis nga climat bi ni mel déjà ñu ñaa ngi takk masque bëgg ko boole ak xeetu mbalit bi loolu moom baaxul vraiment. te xeet bi baaxul da lay loo indi la leneen beneen conséquence bu ëpp bu ëpp bu ëpp nit ñëpp feebar fi waaye leneen bu si yokkee tamit day gën a métti rek nañ fexe daal ñu juboo fay leen seen xaalis jàmm ni ñooy. ñaari fan yoo xamante ni nag ñu ngi banque seen yoxo di sàkku état bu Sénégal daal di leen di fay lu ëpp fukk ak ñeent ci ay milliards ci suñu ay koppar. dañoo liggéey lu tollook juróom-ñaari weer en retour di facturer te jotuñu seen ay paiement yi leen état bi war a jox. ci diggante bi nag am na ay waxtaan yu bari yu lalu woon ak ay engagement yoo xam ne xëy na amoon nañ ko mais boobu ba léegi daal gisaguñ dara. ab waxtaan boo xamante ni daal nañ koy door ngi rek amali saafara. impact bi xam nañ ko gis nañ ko parce que ñun ay privé lañ certes waaye xam nañ ne ci service bi ñu nekk service public la warul am interruption donc xam nañ dégâts yu mu mën a causer ak domage yu muy mën a indi donc yooyu yëpp mesurer nañ ko bu baax a baax a baax. démb de ki ñuy naan Cheikh Diop directeur du trésor wax dëgg yàlla dalal nañu. ñu am échange am waxtaan yu fructueux donc yoo xamante ni si ay engagement jógewaat fa donc bi ñuy jógee ci loolu sax moo tax ñun ñu delluwaat waxtaanaat ne tey nañ leen continuer di accompagner def un service minimum. fileeg ñuy xaar yooyu lee saafara daanaka nag dina bari foo xamante ni nag noyyi fa sax day jafe ndax mbalit bu bari ba fa ne. mbalit bi sax yàgg nekk jafe-jafe jëm ci askan wi tey jile ñuy dund lu gën a métti. ñu dellu leen Colobane ñetti fan ginnaaw la fa xewoon di camion bu saaraan dugg ci marché ba fa ñuy jaay fëgg jaay ba def fa ay loraange yu bari xëy nañu fa dellu si ñetti doomu aadama ñoo ca faatu woon ci fàttali ñañ fa fekk nag ñuy jaay ñoom ne nañu dogalu sunu borom la xamle nañu it ne fa ñu nekk saa su nekk euh, naka su dul noonu mu di mitit wala musiba mën na leen a yoot ndax sax. xat goog euh, xat na ko bëgg nañu kilifa yi dimbali leen yóbbu leen feneen foo xam ne mooy gën a yaatu te danañ fa mën di dem di liggéey seenub liggéey di ci am liñ ci bëgg reportage foofee ca marché fëgg jaay ba ca Colobane Fatima Touré ak Alioune jaañ activité yi di wéy gannaaw ba ñetti nit ñàkkee seen bakkan ci ab l'accident doon nag situation boo xam ni ñu bëri rek dañoo jàpp ni marché boobee dafa xat waaye nag commerçant yi ak ñi nga xam ne ñoo di tablier yi ñoom dañoo jàpp ni li fa am ndogalu yàlla la. lu yàlla dogal la rek yàlla moom li dogal moom jàmtu na si fangu ko aussi fii ay responsable def ne ay boroomi kër boroomi njaboot amul nooy fii quoi kuy Sénégal yi na la parce que ben nit xuree ko rek. àdduna jaru ko quoi. waaw sécurité amul kenn ku ko am Sénégal euh, tali yi soog accident mi ngi fay am même biir kër yi sax accident mi ngi fay am kon yaakaar naa ne fii plus de vingt ans ñi ngi fi comme loolu mi ngi fii soog a am te jàpp nañ ne ndogalu suñ borom la. doo ko ñu ragal non ku nekk foo war a dee foo ngay dee rek. lu mu ci am ñoom nangu nañu li nga xam ne nag moo di xataayu marché boobee ñu jàpp ni sax foofee ñu nekk du lieu pour ñu def fa commerce loolu sax moo waral ñuy ñaan ñu wutal leen ay site de recasement. ñun moom dañuy xëy di rek kuy xëy xos nag moom loo am rek da nga koy sant yàlla mi la saak mais nag wax dëgg yàlla buñ aman fare nit ak fu mën di doon it te nekk loo xam ne moo gën si nit baax na si. beneen place buñ ko amee dañuy dem feneen foo xam ne am nañ ko dañ fay dem. ndaxte comme fii nii nii ñu ne fi gën a luñu ndax fii nii aussi ah, milieu de passage nekkul milieu de jaayukaay soo amoon feneen fu ñu gën dem waaye amuñu pexe moo tax ñu nekk fi di fi liggéey. yenn waxtaan nag commencé nañ ko door ak ñi nga xam ni ñoo di waa mairie bu HLM bu ko defee ñu daal di trouver ay solution bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu. mairie bi lépp gis na ko waaw ah, waaye nag amuñu pexe ba tey. waa mairie bi ñëw nañ fi waxtaan nañ seeg ñoom. parce am na leen ko waxtaan ñun ñëpp suñu biir. parce fii borom njaboot rek a fi ne. ñu fàttali ñu rek ñi jéem nañu jot mairie commune bu HLM waaye nag ba fi ñu toll ñoom ñi leen kenn jotu leen ba tey. diwaanu kees mécanicien ya fa nekk ouvrier yeeg artisan yi ñi ngi ñaawlu anam yuy métti yi ñuy liggéeye ñu gën leen ñu nekk ci condition yu gën lii mooy seen bëgg-bëgg. bokk na ci ñu am assurance man di dem ci mutuelle de santé yi di man di faju ñoom ñooñee fekk baax ca diwaanu Kees Mbuur ak Tiwaawoon daje ngir di sàkku ci kilifa yi ñu wut également feneen fu ñu leen mën a dugal ba man di fa liggéey Cheikh Anta ak Sey Latir la ñuy teewlu seen reportage. ñii ñuy duppee ay artisan ñu yëngu ci wàllu yenn xeetu métier yi ay mécanicien ay tôlier ay peintres daje woon fii ci Thiès yëkkati seen kàddu di fësal jafe-jafe yi nga xamante ne ouvrier yi am nañu ko. ouvrier képp koo xam xam na ni ci secteur informel la dañuy liggéey di blessé di gaañ te bu ñuy faju dañuy am problème te ouvrier journée la am ñu bëgg ay assurance de vie yoo xam dañ ñuy accompagner. sonn nañu parce que da jël oto bu mën a ñëw dépanner hmm. ñu sàcc pétrole yi wala ñu sàcc moteur bi. nga am problème yoo xam doo mën a fay loolu ñàkk ñoom ñii de nee nañu am nañu beneen njàmbat bu leen gën a yitteel jamono yi seen nekkin metti na lool ndaxte amuñu ay bërëb yu ñuy liggéey ba tax ñu ngi sakk ci kilifa yi surtout mbuurkat bii nga xamante ne njiitu réew mi moo ko joxe woon ñoom it ñu am ci wàll ngir ñu mën faa yóbbu ouvrier yi ñu fay liggéey. cité des enseignants pas dégg ko cité police kan moo mës a dégg cité kan moo mës a dégg cité des mécaniciens mbuurkat d'après am nañ fa cinquante deux hectares. yoo xamante ne ñu mënaguñ cee jot. ci biir mbootaay bi mécanicien yaa ngi si peintre yaa ngi si tôlier yaa ngi si électricien yaa ngi si menuisier bois yaa ngi si ferrailleur yaa ngi si mason yaa ngi si. artisan yooyu ñooy ñëpp doo dajaloo tey ni fi nekk nii dañoo bëgg tey li amoon dootul amati mooy di xat-xatloo ci garage yi di xat-xatloo ci mbedd yi situation yi métti na ñuy dund. ñi bokk ci kuréel gi di ay ouvrier ñoom nee nañ dafa mel ni nguur gi da leen a fàtte ba tax ñu bëgg kilifa yi am taxawaay yeesu leen ndaxte nee nañu mbaam gàtt na de waaye ci jur gi la bokk waxtaane wàllu wér-gu-yaram ak seetlu gu ñu def ci euh, département bu kanal seetlu ni mooy jigéen ñi mucc di ca ñàkk seen bakkan wala gone yi juddu di dellu lim bi dafa bari lool la ko jur bokk na ci bloc chirurgical bi nga xam ne dañ koo tëj lu bari nag ci ñi soxla ñu opérer leen wala ñu taxawu leen dañ leen di évacuer lu ni mel tax na fédération gi jaboote bàjjenu gox yi daje woon ca diwaanu Kanel di seet nu ñu ko mën a lijjante waxtaane nañu ponk bi am na it bëccëg yooyu amal nañu fa mayem deret mu doonoon ci teewaayu Aliou Bandel Niang ak El Hadji moo ni sax de tabaxal nañ leen ab poste de santé de référence te ñu ubbi ko lu ëpp ay at yu bëri ngi nii waaye lu jëm ci wàllu ottu wergu yaramu askanu département bu Kanel ay jafe-jafe yu tar la ca ba ñuy daje bëccëg bu waxtaan ci biir Kanel fédération régionale ba jën gox yi doonu Matam daal di fëgg seen gémmiñ di sàkku ci kilifa yàpp ndimbal. Euh, ñëw jàppale suñu yaay yi suñu maam yi suñu sœur yi jàppale leen ci journée de mobilisation bi ndax dañu nekk ñoom di wéy di béy seen wàll ci waar wi mooy fexe ba nit ñi di am deret banque de sang yi nekk ci région bi bañ a manqué deret mais également waxtaan ak seen i moromu jigéen pour naka la ñu fàggandikoo cancer du col de wax leen ni ñoom seen taxawaay ci système de santé bi taxawaay bu dëgër la naka jekk nag centre de santé boo xam ne am na bloc opératoire la mais bloc bi wax dëgg yàlla euh, fonctionné wul gis nañu. région boo xam ne mën nañu wax ne am na ñetti hôpitaux defe naa ñun région de Matam mën nañ ci tiitaru par rapport ak yeneen région yi li am nag mooy gën ko ñoŋal. lu jëm ci wàllu dépistage cancer du col de l'utérus ba itam yee jigéen ñi ci soloy consultation prénatale ba sax lu jëm ci wàllum vaccination ba jën gox yi kanel lëkkaloog seen yoon yi ci région bu Matam di woo askan wi ngir ñuy faral di maye seen deret ndax jàpp nañu ab geste bi nga xam ni day sauver ay vie dellu si ndakaaru wax gaz ak ni mu ñàkkee ci dëkk bi bari nay quartier fu ci mel ne ci Parcelles Assainies gis fa gaz moom jafe na lool boole ceekit sax ñu bari ci borom bikit yi wala ci clients yi dafa am xeeti gaz yu ñuy jël ak yu ñu dul jël loolu bokk na ci li gën a yokk jafe-jafe yi reportage Abdoulaye Diop. bi ay midi tegalee ci la oustaz bi di soog am gaz ci këram. ngir lu ñu mën a toggee añ. xanaa kër yi lañ bëggoon doon kii rek kër yi lañ bëggoon jënd utiliser kër ak fourne ndax bu amul gaz moom kër yi ñoo fi sës jënd ñu bëggoon jot daal la borom bitig bi yónnee xale na wala oustaz mu indi gaz bi gaaw am na seen doon gaz balaa gaz yi jeex. daara ji nga xam ni li fi nekk ci ay xale yu góor ak yu jigéen bëri na ay bis bu nekk dinañ soxla charger ñaari gaz yi. ñaari yoon te bu nekk mën na jar juróom benn téeméer six kilo bi euh, mu ci trois mille manqué cent franc léegi nag ñu waxat la borom bi di xasee bi la wax léegi waaw bu bu kilo bi mu ci quatre mille cinq cent waaye avant muy am gaz oustaz bi dem na ci ay boutiques yu bëri yu nekk ci unité vingt cinq yu Parcelles Assainies bu ci mel ni boutique bi. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. maa ngi lay def. maa ngi fi sax. alhamdulilah. ndax amul gaz. non gaz amul de. ah. waaw gaz amul de. Ah, gaz amul temps yi ñàkk de. non gaz temps yi kat kenn mënu koo gis. Ah. waaw gaz kenn mënu koo gis temps yi. li am foofu nag dafa mel ni moo amaat ci beneen boutique bi nga xam ni ñëw na fi laajte. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw. Ah. salaamaaleykum wa rahmatulah. sant yàlla bu baax. alhamdulilah alhamdulilah. nga gaa nga laaj daa am nga gaz. gaz de ma dem ba léegi. barki dem ba léegi laa la wax de. Ah. maa ngi ko door a am xam nga li sama client yi. nu wax man dama jël gaz yu yëpp yu laa jël ku ma ci génne léegi nag koo yóbbu ñu ne vert la jël ñu ne rouge. mujjantal gi nag mujj na am gaz ci boutique bii. saa yi saa gi borom gaz saa su ñëwee su fekkee wi yeneen yi su ah. fekkee yu bële ah. du ko jël quoi wax moom bu verte ou bien moom moo ko arrangé du jël bu bleu bi quoi. beneen client bi ñëw pour jënd si moom tamit ni jafe-jafe yu nu mel lay jànkonteel ngir mën a am gaz. tamit gaz bi dafa cher ba cher ba pare di manqué au moins bu amoon cher mu tane. day mhm. dafa cher ba pare manqué. ci gox yu bari ci biir ndakaaru ñu nekk ci biir kër yi di am problème ngir mën a am gaz ba pare leneen li ci yokk mooy seetlu njëgu dund gi mu ngi gën a cher ba léegi. Abdoulaye waxtaanee leneen mu di wàllu tàgga yaram ak coupe du monde beach soccer ba ñuy amal ca Dubai Sénégal toog na euh, Japon la doon footballal match bu mujj ci poule bi Japon gagné ko juróom-benni bal ci ñeent muy 6 à 4 moo tax Sénégal toog fàttali ne ci coupe du monde bi mujj da woon de 2019 la woon Sénégal mi ngi woon ci ñeenteelu place bi bi yoon nag mu teel a toog. loole ñu bari njoxtu ne kon wala jàpp ne xëy na jot na nag ñu renouveler équipe bi fi nekk indiwaat beneen reportage Cheikh Sadibou Diarra Sénégal du jouer ci quart de finale yu coupe du monde bu atum 2024 bu bitu soccer gaynde yi dañu amal seen ñaareeli nërmeelu ci groupe C bi Japon moo ko dóor 6 ci 4 ba waral élimination ci premier tour bi. moo ne dañ fi score boo xamante ni ay lay woon tan baaxoon na euh, xaw ma nag lu tax Euh, naka la naka la nañu def ba ñu ba ñu remonté ñu noonu gagné ñu parce que du ma si technicien mais on a eu du mal à conserver ce score là euh, te bi ñu jógee si suñu match contre Colombie jàppoon naa ni euh, ni ñu réagiroon du baax sax yàq jàppoon naa ni mën dañuy qualifié quoi mais itam mën nañu wax ni penalty bi nga xam ne moo indi nag différence bi yeneen ñaari but yu mu yi mooy le penalty de cinquième but du Japon penalty boobu man jàpp naa ne arbitre bi daf ko daf ko daf ko inventé daal vraiment loolu tam bokk na ci li li li rey xale yi que moment boobu nañ tamit Euh, tuuti manque euh, d'expérience parce que dañu bañ dañu dañu daal di génn seen ay gong génn ci match bi et deux sixième bi bi daal di ñëw mu doggali ñu pour équipe bu classé woon euh, quatrième mondial Euh, dellu ginnaaw la dellu ginnaaw la euh, ba su le plan résultat. lii di résultat bi gën a bon bu gaynde yi ci compétition bi ginnaaw atum 2015 muy échec ci Sénégal bi amoon yéene jël coupe bi ca Dubaï. coup d'arrêt la boo xam ne xëy na c'est un mal nécessaire un mal qui va bu bu bu indi jëriñ. ba tax ñu interroger waat si seen si seen ay ay ay possibilité si seen seen potentiel renouveler wu et euh, daal di tàmbali waat lañ mënoon lañ daan def rek duggaat si si xeex bi euh, imposer waat en Afrique mooy est-ce que ñi ngi def ñi est-ce que euh, am nañu possibilité am benn dynamisme boo xamante ni pour le bus soco local ba mën a génn di puiser si yeneen régions yi comme Saint-Louis ah comme Mbour par exemple xool fa ay talent indi leen greffé leen ci kii parce que boo dul évolué boo moytuwul euh, rate ay passerelles. Sénégal bi yor raaya Afrique bi ci wàllum beach soccer mu ngi tegle échec ginnaaw gi ci compétition yi mu bokk ay weer rek des laata CAN 2024 ba ca Égypte ba tax na fi mu toll nii remobiliser gaynde yi doon li war te gaaw. Cheikh Sadibou Diarra jërëjëf mbokk yi yéen jërë ngeen jëf ci ànd bi ak euh, télévision Futur Média fi la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi yàlla nañu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jam ba suba ak jàmm.